mu rafet mii biñ ñëwee wax ñu ko ñu rafet lu ko lool ma ne leen man de danaa leen ci gunge incha allah ndaxte may seen mag biñ ma ko waxee tim jottali naa ko waa askan wi te ñoom ñi ko dégg ñëpp yàlla seede na ñi ci jot ñi ci ëpp nañ ma xamal ma ne ma nii nga xam ne moom laay gunge kuréel bi ñoomit noonu lañ koy gunge kon lii beneen mbir la boo xam ne bokkul ak yeewu askan wi ndaxte bu doon yeewu askan wi tey xëñ na daam du ci mën a bokk te daam kenn mënut a wax Ousmane Sonko bay daam Mor ngi nii kon tey du ci bokk ak avocat yi nga xam ne ñoom lañu tudd yooyu mooy pour éviter les confusions pour teg ci dara nag ci li nga xam ne moom la gaa ñi wax dafay dafay jafe ndaxte li daam di wax tappale yi dafa bëri li mu ko waxee te nit ñi war koy gën a xam di ko gën a dégg li fi xew lépp du kenn lu may Macky Sall mooy ndeyu mbi liki Thiendella ex-ministre de l'intérieur et cetera c'est Macky le principal responsable te dañuy wax administration man administration la bokk léegi-léegi da ngay sax parce que bu ñu ne la un ordre manifestement illégal ñu jox la ko waroo ko appliquer yoon dala ci protéger di féliciter avocat Ousmane Sonko yi c'est de grands avocats def nañ seen liggéey am nañ ci ndam justice def na liggéeyam mais bu tax ñu tëdd nelaw yaakaar ne toujours lañ doon wax ci justice dañ koo dindi déedéet ndaxte li fi wax dans sànq caaxaan yooyu mi ngi fi ba léegi ndaxte ñoom nee nañu Ousmane Sonko inspecteur des impôts et domaines député maire de Ziguinchor euh, chef de l'opposition principal leader de l'opposition nee nañ mënut am portable ba dem dafa taxal portable gendarmerie ñu ne Ousmane Sonko boobu daal ñoom jàpp nañ ko teg nañ ko loxo waane Ousmane Sonko bi nga xam ne nee nañ tëj nañ ko ñaari at ci affaire Adji Sarr nee nañ Ousmane Sonko boobu daal gisuñu ko nee nañ dem nañ kër góor gi gisuñu ko nee nañ dem nañ Ziguinchor gisuñu ko nañ dem nañ prison bi nekk. nu mu tëddee ci Sébikotane gisuñu ko nee nañ dem nañ ko seeti hôpital gisuñu ko te Ousmane Sonko boobu bind na leen ne leen man atte bi ngeen ma atte tëj ma ñaari at d'accord ma ci ndax lan justice boo xam ne bii bu fekkee ne moom nangu nañu loolu mooy liñ ko tëj ñaari at day nasaxaay ñu jugé waat ko mais Macky Sall nanguwu ko loolu yàq réew mi munu ko weesu ñii wax ko ñu demaat barki démb ki nga xam ne mooy atte Ziguinchor ne li ngeen ko génnee ci liste électorale bi du yoon dugalaat leen ko ci Macky Sall bañ écraser la justice rusloo justice ñu ngi xool nag ubbi suñuy bët ba xam justice boobu lan lay réagir ki li nga xam ne moom la Macky Sall def union des magistrats ñi nga xam ne ñoo yore couleeru magistrat yëpp ñuy atte ñu ngi leen di déglu ba xamit ñoom lan la ñuy def parce que Ousmane Sonko fa mu nekk yoon moo ko fa téye yoon boobu nag moo fabaat daan teg ko ci ndoddum Sénégal ci ndoddum état Sénégal mais état Sénégal bañ na ci ndigalu Macky Sall yéen magistrats yi ñu ngi leen di déglu ba xam lan mooy nekk seen réaction ëllëg c'est très important alors mais tout cela ci gàttal rek deux mille vingt quatre incha allah ci kàttanu yàlla Ousmane Sonko dana nekk pouvoir Ousmane ko dana nekk pouvoir deux mille vingt quatre Macky nga dégg loolu nga xam ko mënoo ci dara bu boobaa nag ah amul tëdd ba deux heures de deux heures du matin rek wala guddi ngay dem di seetee xalif généro amul de. lu waay ne see loxo lay naaj faut faire très attention nee naa la woon Ousmane Sonko c'est du granit chauffé au volcan mën loo ko briser c'est impossible te loolu la Macky di essayer il peut pas briser Sonko et il peut pas nous briser ñun ñëpp moo tax may lancé un appel d'abord ndaw yi nga xam ne ñu ngi jël gaal yi di dem parce que ñi ci ëpp ñëpp xat-xat yi Ousmane Sonko nekk moo tax ñu ñàkk yaakaar waaye rikk nag maa leen di ñaan xale yi bu leen dem bu leen yàq liggéey bi ngeen doon liggéey boobu ba léegi deux mille vingt quatre projet bi dafay taxaw à la te dañoo bëgg ngeen fekkee ko bu leen jàpp lii nga xam ne moom la Macky Sall di def di buntu xatal Ousmane Sonko non c'est pas possible xam na ko moom mag il la sait parce que yi muy def yëpp pour que son candidat Fantos mën a jàll je l'appelle vraiment bébé Amadou mais il est toujours au biberon <laughs> Macky moo koy jox toujours muy nàmp quoi il veut pas se sevrer comment comment un, un, un candidat qui veut pas se sevrer un candidat qui est au biberon on va lui confier les destins d'un pays c'est pas possible c'est impossible qu'il gagne je me demande même est-ce que bis bu Ousmane jógee taxaw moom dana continuer nekk sa sa continuer sa candidature ce sera pratiquement impossible may dégg ñeen Macky Sall le bilan matériel de Macky Sall et c'est pas vrai il a le pire bilan de tous les présidents du jaar Sénégal l'autoroute yëpp sous mon magistère avec Ablaye Wade il n'a rien sorti de sa tête j'ai les documents mi ngi fii BRT ñun ter teer teer ñu tudd mhm. ñun la lu fi réalisé ba nit ñi bëgg ko naw ci loolu bu ngeen bëggee ma génne leen portefeuille bi teg quand j'étais ministre des infra des infrastructures tout VDN bi jëm géej gi bala ma fay jógee sax amoon nañ financement fonds commercial de huit milliards on voulait même faire une autoroute Scat Nouakchott tous les tracés a été fait sur le magistère d'Ablaye Wade. Il n'a rien imaginé, rien. Son seul bilan, mooy 1500 ñu tëj leen ci kaso son seul bilan mooy toroxal wala bunduxatal le leader de l'opposition boo xam ne benn président mosu koo def c'est vrai. Senghor jàpp na Mamadou Dia dañ ko 12 ans ou 13 ans ou 14 ans ba mu ñàkk ay bëtam mais Senghor respecté ses détenus politiques te ñoom ñoo bokkoon camp sax j'ai vingt 26 ans accompagné Ablaye Wade tëj nañu kaso bu dul benn du ñaar mais Abdou Diouf da daan ab lay Wade moo tax mu daan mën a dugg gouvernement génnaat et cetera c'était ça le jeu de la démocratie ba ñun bi ñu defee grève de la faim sax en 1994 cinq jours la ñu def Abdou Diouf génne ñu ak Abdoulaye Wade mais Macky Sall mbañeel gi mu bañeel Ousmane Sonko ba di ko teg lii la personne mënut comprendre et pourtant Ousmane n'est pas un homme je peux en attester li ñuy wax Ousmane mu sell mi et cetera xale yi di wax c'est vrai parce que je l'ai pratiqué xam naa ban genre homme la c'est vrai maintenant il y a son discours le Sénégal au Sénégal et aux Sénégalais mais c'est ça le patriotisme